amee encore une fois ci seen numéro bi nga xamante ne mooy deuxième numéro de la semaine ci émission Yoor Yoor waaye tamit pour vous rappeler encore une fois émission Yoor Yoor day am de 11 à midi tous les jours muy jour de la semaine du lundi au vendredi tey ji itamit on a le plaisir encore une fois dalalaat ko xamante ne min na lool plateau bi waaye tamit gannaaw gi mu daal di jàlle fii boobu ba tey ñi ñaa ngi koy daal di laajte boobu ba tey itamit dara yemmu ca tey jii mu ama on a encore le plaisir di ko dalalaat tey jii muy ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Gueye mu ngi fii oustaz Ibrahima salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa Thierno ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboolem réew mi ak bitim réew di nuyu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy suivre chaîne bi rawatina émission bi di nuyu waa télé bi réalisateur yeeg caméraman yeeg euh, ñëpp ñi nga xamante ne nii vraiment ñu ngi ci administration bi di doxal yal na yàlla subhanahu wa taala defal leen jàmm te defal ñu ko. di nuyu ki yàlla teg ci bopp réew mi ak ña mu seqal liggéey beeg ña bëgg a jot ci réew meek ñëpp ñu ngi ñaanoon suñu borom tabaaraka wa taala defal leen jàmm ak tawfiq di amaan mbégte vraiment euh, dellu si waat. Mm-hmm. fii ci seen plateau bi. wax comme ni nga ko waxee sànq télé bi moom tàmbale nañ maa miin. wallaahi. Euh, ma it wax dëgg yàlla euh, dama leen di bëgge lool ndax ay nit yu woyof ñu disponible ay ndaw lañ waaye gis naa ci ñoom ay yar ak teggin bu baax a baax ak euh, am bëgg-bëgg ci li ñuy def yal na yàlla sàmm leen amiin amiin am nañ mbégte daal dellu si ngir jëriñ askan wi incha allah lu jëriñ askan bi ci loolu la ñuy daal di dox saa su ne kon nag pour rappeler aujourd'hui encore une fois on est en direct sur YouTube et sur Facebook mën ngeen ñëw suivre wala sax ngeen woo ñu ci 88 628 02 02 tey jii te mu tey bi suite la parce que déjà Ibrahim gannaaw bi nga fi daal di jàllee dafa am ay question yu gën a bari yuy ñëwaat parce que émission bi am na solo goo xam ne du man maa ko laajaat mais téléspectateurs yi ñoo ko laajaat saa su ne kañ ngay woowaat Ibrahim mu daal di ñëwaat et cetera et ça m'a fait vraiment plaisir donc mu nekk itamit ku ku ku yombul koo xamante ne <laughs> temps moom jafe na lool lool lool lool des fois quand j'ai vraiment son appel c'est c'est vraiment un plaisir waaye tey jii moom napp naa ko fu mu mënta nekk rek pour l'instant alors tey jii thème bi nga xamante ne moom la ñu defoon bëri passé ak moom moom la ñuy daal di defaat tey jii muy néegu sëy thème boobu nga xamante ne daanaka am na lu gën a bari di ci daal di làqu ay aada ak sëy ak ni mel aadaay biir nekk ak ni mel waaye tey jii divorce yu gën a bari yoo xamante ne dañ koy daal di dund ci société bi lee boo demee ci yenn tribunaux yi looy gis dossier divorce mooy ëpp fuuf yeneen dossier lu waral loola te takk yi ñu ngi nii takk yu légal yi ak yu légal yi lépp bari na ca loola tey jii moom mooy waxtaan gi waaye laataa la ma bàyyi ko mu développé ci mbir ma balaa ñoo dikkaat ci li ni mel. waaw Thierno euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax bon man bokk na ci li may faral di gën a bëgg di ko waxtaanee mhm. mooy mbirum sëy mhm. parce wax nañ la ne. mooy benn yoon bi sama borom tër mhm. ngir àdduna bi di ci yokkoo lépp lu ñu jëfandikoo ci àdduna ngir doomi aadama yi di ci yokkoo daganut ci lislaam moo xam moo xam ay maire porteuse ak moo xam ay euh, mère allaitement mère allaitement ak non mère allaitement mën na bañ a jafe mais li may wax ci wàllum juddu maanaam nan la ñuy def yoon yi ñuy jaar ba doomu aadama juddu daal mhm. yoon yi ñuy jaar ba nit gane àdduna benn yoon dong la ci sama boroom xotti ngir mu dagan mooy sëy maanaam yow miy góor nga labat ab jigéen takk ko ngeen di am njaboot loolu dong moo mën a indi ak njaboot ci àdduna maanaam ci la nit ñi mën a baree mhm. yeneen pexe yuñ mën a kër këri ba jaar ci dagan daganut ak bu mën a doon nag dafay xaraam ci lislaam suñu borom it yitte gum jox yitte ngir àdduna bi nit ñi di jurante di bari moo tax mu araamal avortement ak bu mu mën a doon nag bañ médic bañ médic médicalisé bañ médicalisé wala ak ba précoce ak ba précoce la yëpp a xaraam. waaye nag am na yoo xam ne oustaz am na fi ngay toll sa maanaam sa wér-gu-yaram du la may nga continuer. loolu leneen la. atte lislaam boo ci gis dafa am lu ñu tuddee ad daruraat tubihul mahduraat l'islam bu ne bul def lii bul lii dafa day am circonstance yooyu yu muy ñëwee te loolu du ku mu neex rek ne waaw toll naa ci circonstance yooyu déedéet dañ koy jàngataat càmbar ko dégg lool kon euh, lépp lu mën a empêcher nit mu mën a gane àdduna loolu dafay xaram ci lislaam dama ne nit mën a gane si àdduna waxuma la nga jël yu lay teree ëmb waxuma loolu muy planning familial àgguma foofu waxuma loolu loolu beneen débat la mm-hmm. waaye koo xamante ne nii maanaam fécondation am na ba doomu aadama sosu mu war a gane si àdduna ñu ñu koy gàllankoor ngir mu bañ a gane si loolu la dafa xaram ci lislaam ñu koy yàq wala ñu koy yàq waa moo tax kon ci gàttal mooy àdduna bi li fi nekk nii yëpp am solo geeg rëjji rëjji geeg coow lu bari léeg lépp buñ ko waxee buñ waxantee dëgg te yàlla tax moo ngi dellu ci ñaari doomi aadama yu gisante woon bëggante tàmbalee meññante muy sunu maam xawaa ba mu yàgg ba mu yàgg ba mu yàgg ba mu yàgg sa waay juru sama waay jur ba mu yàgg ñeneen ak ñeneen àdduna bi àdduna bi maanaam ci sëy mooy secret àdduna mhm. mooy secret àdduna li ëpp solo ci àdduna ñu war koo téye war ko man dama jàppoon ne sax war nañ am ab ministère spécial boo xamante ne nii affaire ménage lay gérer moom mbir yi nag war na toll foofu mu ne. parce que sëñ bi jafe-jafe ak gàllankoor yi am ci biir sëy yi kenn xamu nu mu toll. kon di ubbi émission yu mel nii di ci waxtaan. ñi mu intéressé ñu toog di concentré wu di ci dëgg di ko déglu te fas yéenee jëfee loolu mën naa arrangé mën naa defar lu bare baree baree bari parce que sëykat sëñ bi li ci nekk ci li ñu war a waxtaanee bari de. tàmbaleel rek ci labat ga jéggil labat gi ak yi war a xew ci biir labat gi ak labat gi ni ko nit ñi yàqe te muy lu am solo ci état bu sëy labat maanaam ndoxaan état bu am solo la ci état bu sëy waaw bu ñu nee baatu labat mën na rafet mais ak ndoxaan la dafa am gu ñaaw am gu bon rek mais labat état bu am solo la ci ci état bu sëy la fay am ak na muy demee ñàkk xam gi ci nit ñi di demee ak erreur yi ñu ciy def yooyu bu ñu ko doon waxtaanee yu bari mën na saafarawu boo fa jógee diggante ñaan geeg takk geeg xale bi suñ koy muur ak di ko jébbal jëkkëram aada yooyu dafa am aaday muuraay ak lu tax guddi geeg dara bañ koy muur ak njëkkante biir néeg baag lekk laax geeg takkalante laax geeg diwalante laax geeg yaa ngi dégg. dàll carax yeeg yeeg benn bu ci nekk ay leçon yu dul jeex la mu mu war ci jigéen mu xam ko ngir mu mën koo jëriñ. Mm-hmm. waaye du lu ñuy def nii rek mu xumb rek mu siiw mu jeex. dégg nga loolu boo ci paree ci biir dundin bi maanaam ginnaaw bi nga amee soxna dund gi yéen ñaar vie conjugale boobu nga xam ne da ngeen koy seq am soxna mu nekk ak yow am borom kër mu nekk ak yow li ko war ci yow li la war ci moom li leen war yéen ñaar ci société bi su ngeen amee njaboot li leen war ci seen njaboot njaboot gi lu ko war ci ay waajuram yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni nii mënees na ko waxtaane lépp daal di tegu ci njëriñ ak divorce gu bari geeg bu ci nekk rek dégg nga ay thèmes yu dul jeex la yoo xam ne vraiment mu ngi indi ay problème ci biir kër yi di indi ay jafe-jafe ba ci goro yi sëy day jóge ci ñaar ñi ko seq dem ci goro yi ñun Afrique noonu la ñuy sëyee ku fi bëgg a sëy bëgg cee génne sa goro yi xam nga ne da ngay caaxaan goro yii mënu leen génn ci sëy man man mënul mënta ne maanaam ki jur sa waajur ki jur sa borom kër ak yow ki la jural say soxna kooku sax mën na bañ a garaaw ndax yow yaay jël soxna si yóbbu sa kër yow léegi soxna si nag su la bëggee sëyal ba noppi bëgg cee génn say parents problème yi fa la tàmbalee loolu mënta ne mais naka leen ci dugale nag loolu tamit dañ koy xam kon parents yi cee génn daam limite non day am ay limite xat man day am ay limite sa jëkkër yu ndaw yi mooy sa frère yi jëkkër yi mm-hmm. sa beau frère yi ñoo ñit mënoo leen a ignorer ci sëy bi mënta ne dégg nga loolu sa njëkk yi muy séeru say borom kër ñooñu mënoo leen a génn ci sëy bi mais kenn ku ci nekk nag dafa am noo leen ciy dugale ak nooy jëflante ak ñoom bu loolu amut mën nga am jafe-jafe ñun Afrique noonu la ñuy sëy sëy bi ñi ci bokk daa bari Afrique sëy ci bokk daa bari léeg-léeg nag feuilleton yi ñuy seetaan suñ télé yi xam nga feuilleton yi xam naa ko feuilleton yi ñuy seetaan suñ télé yi gis tubaab yi nañuy sëyee léegi-léegi suñu jigéen ñii loolu la ñuy jéem a kopp jàpp ne noonu la mbir war a doxee wala suñu série yi seen série sénégalaise waaw waaw maanaam yu tàmbalee xew léegi xanaa mm-hmm. waa kañ yooyu ñuy napp yooyu ak napp la ko ñuy nam napp société bi ku ci deful attention dinañ la napp te dara du ci réalité nag maanaam ñoom seen jëm bopp duñ ñoom ñoom ñoom duñ ay réel mooy ñu joué série yi ñoom seen jëm bopp duñ ci ay réel koo ci fekk koñam muy dund nga koy gis ci télé bi da naan xanaa du kii laay gis télé bi tellement que dégg nga li muy dégager ak li muy génnee ak casting bi dam koy doxalee li ci nekk réel bariwul li nga li ci tegu ci réalité bariwul moom sax du noona ay mbir la yoo xamante ne nii warees na koo càmbar di ci waxtaan ak di delloowaat nit ñi ci li nga xamante ne nii parce que am na loo xam ne mënuñu koo changer. Mm-hmm. af africain ni muy xalaate société sénégalaise ni mu organisé woo loolu mënuñu koo changer. Mm-hmm. mënta ne mentalité yi nag mën na avancé loolu kenn terewu ko. Mm-hmm. waaye dafa am ay réalité yu fi nekk yoo xam ne mun te jóg mënta fee changer sama benn xarit dafa maa mos a wax ne ma oustaz man takkalu ma sama yaay mbaa sama baay mbaa sama rak mbaa sama mag sama jabar pour man la. ma ne ko am nga ci droit mu jël jabaram yóbbu dakaar dëkk ak moom ci appartement ñu ne fa ñoom ñaata dund yaayam moom mooy taawu yaayam ya ñun Sénégal fii boo amee soxna sa yaay day jàppale moom tàmbale naa noppalu ci waañ wi donc mbiri nag demul noon nag mais luñ ci man wallaahi noonu xalaatee mais waaye si daal nee na sama jabar pour man la daal di taxaw nag daal di taxaw déclaré ko ne leen sama jabar du pour yéen pour man la takkalu ma jabar kenn sama bopp laa takkal jabar jël ndaw si yóbbu ndakaaru nekk ak moom ñuy dund ñoom ñaar di dund ñoom ñaar tàmbale am njaboot njaboot gi tàmbalee bëri mënatuñoo dëkk ci appartement arrangé tu leen kon wàññi lenn ci xale yi yóbbu village moom mënta ñàkk moom bi mu yenoon lenn ci xale yi yóbbu village baa ji du refule <laughs> delloo ne ko say doom pour yow la sa njaboot pour yow la njaboot pour yow la tabaski korité bu ñu ñëwee kenn du wax ak soxna si ñëpp dañuy tëye seen bopp ci moom bu amee doom bu amee ngénte kenn du dem soxna si lépp lu mu def ci ay teraanga bu yóbbuwee kenn du jël lépp la ñuy delloo parce que la tax moom moo ne woon sama jabar pour man la. lor na ko lor na ko nee na na ci ñëpp génn nañ ko bàyyi ak jabaram léegi ñëpp génn ci bàyyi ko soxna si léegi moom ku góor ki xëy na mën na ko supporter waaye jigéen ji mënta supporter loolu ku jigéen ki mënu ko supporter. wallaahi kon da Sénégal dafa lu ñuy dundee léegi nag kenn nga nekk ak sa jabar yow kese te loolu l'islam santaane it nag boo takkee jabar yenul yàq sa jabar ngeen dem maanaam loolu l'islam jàngale islam nee na boo takkee jabar yenul sa jabar ngeen dem sa yoon waaw loolu moo jaar ñun ni ñu dundee famille suñu biir kër yi baaxul de islamiquement parlant baaxul maanaam yow da ngay takk jabar indi ci biir kër gi sa frère takk indi ci biir kër gi sa frère takk beneen frère takk indi ci biir kër gi grand frère bi takk indi taaw bi takk indi rakku taaw takk indi caat bi takk indi ngeen nekk juróomi ponkal ci biir kër gi ku nekk ak jabaram mhm. yow sa jabar day woddoo sarvet mhm. xuus ci ëtt bi romb ah. sa fere toog mhm. yel ya xes pecc mu woddoo sarvet yaa ngi dégg yaa ngi dégg daal di dem ca ca ca dus ba sangu uh-huh. sa fere bi mën naa nekk góor yàlla mën naa nekk ko am jom sëgg ay bëtam waaye bu sëggee tey mën naa bañ a sëgg suba te mën ngaa am tamit fereer bu mel ni Souleymane <laughs> boo xamante ne nii bu soxna si rombee xool yeel surtout moom bu soxnaam yeelam la ñu ñuulee eh. xool yeel yi mhm. yooyu léeg-léeg day indi ay scandale ci biir kër yi mhm. indi ay problème ci biir kër yi mais man dégg naa ko histoire yooyu dégg naa ko ba tàyyi wallaahi yooyu mooy indi sëñ bi nga tukki Europe gars yi nekkal la fi moo koy indi loolu la léegi nag lislaam dara teeloo na wax parce que yow sa jabar sa jabar la man arabe war ma ko jox loxo de déedéet yow boo bokkee nit ki ndey ak bàyyi dégg nga nga am soxna soxna soosee daa war a muur sama kanam waruma koo jox loxo waruma koo seq. yee sa loolu. mais c'est vrai man gis naa man gis naa gis naa frère boo xamante ne day dugg néegu jabaru frère bi mais di diwal frère bi jabar ji ndiggam di ko diwal yaramam jël diw yi di ko di ko diwal boo waxee mu ne sama jabaru frère la. sa loolu dara nekk ci. sa ëpp naa def sëñ bi. di ngeen koo seq donc sa jabaru frère la kay. lii mooy indi problème da ngeen koo seq problème amu ca alors que l'islam daf laa tegaloo ay frontières te frontières yi la l'islam tegal. est-ce que xam nga ne njaaloo yu am yëpp ci wéet la tàmbalee. waaw da nga mës a gis jigéen ñun góor ak jigéen mu ne ci mbedd mi di njaaloo barewul de. ah léegi tey. non bëccëg ndara kàmm ñu tëdd fii lal seen margaandu di njaaloo. Sénégal àggugul foofu. Mhm. kon njaaloo boo gis ci wéet la tàmbalee. Mhm. te wéet boobu la lislaam tere woon xam nga lu muy teg. Mhm. mooy frontière u lislaam saa yoo ko jéggee rek mën ngaa def la nga doon tere. moo tax ko tere la ko bala nga cee dem. waaw kaza kon islamiquement parlant boo takkee sa jabar da dem ak moom boo demee ci réewu euh, réewu naar yu bari noonu la ñuy dundee booy takk di dem même tubaab bi sax noonu la ñuy booy takk di dem mais dem gi ngay dem nag terewul relation bi day des sa diggante ak famille bi relation bi dafay des. mais dem gi nag surtout ñun ak suñu suñu aada yi cosaan ak li ni mel. comme li nga wax bu fekkee ne par exemple man takk naa jabar sama yaay mu ngi xalaat ne xëy na sama jabar mën na koo dimbali ci waañ beeg ci fóotee ak ni li mel. loolu mooy li ma la waxoon ne dafa am ay réalité yu fi nekk yoo xamante ni sopp ko day jafe. Mhm. mais dama ne la. am na am na ko mën a dundee. Mhm. am na nuñ ko mën a dundee ba parent bi du garaaw trop ci moom ba dina la mën a supporter nga dem yàq sa jabar wala ngeen beru yàq sa jabar. Mhm. même suñ ko bañee buñ taxawee bañ ko muñal leen. kilifa yi mën nañ fee bañ a yàgg lool yal na yàlla yokk seen i fan mais muñal leen boo leen muñalee rek insha allahu taala yàlla dina ci def sutura mhm. loolu la en tout cas daal li ma bëgg a wax daal mooy euh, képp koo xam ne da bëgg a sëy fii ci réew mi bàyyil xel réalité yi boo nekkee jigéen bëgg a sëy ci famille bàyyil xel réalité famille boobee soo nee man damay sëy te bëgg jël lépp loo xam ne da ko faa fekk ci ay aada ak ay réalité bëgg a sànni ci àll ba da ngay am jafe-jafe mhm. yow it boo nekkee ci réew mi am fi soxna jàpp na yow da bëgg a xool ci télé yeeg émission yeeg wala ci télé yeeg euh, nu tudd euh, série yeeg yooyu nga ne noonu nga bëgg a gérer yaag sa soxna man ngeen am jafeñ-jafeñ kon bàyyil xel réalité bi bàyyil xel sa cosaan bàyyil xel sa aada bàyyil xel islam loolu mën na laa jural stabilité bu am solo ci euh, li nga xam ne mooy d'accord ci famille oustaz da nga gis ne parents yi ñoom ñooy indi jafe-jafe yi yu ci ëpp parce que dañuy gis ne yow ku góor ki dañ la labatoon kenoon da maanaam dañ la labaloon keneen keneen nga war koo takk. la labataloon keneen dañ la labataloon keneen merci Ibrahima dañ la labataloon keneen nga war koo takk nga ne kooku bëgguma ko te kooku mbokk la nga bàyyi fi sëyu mbokk dem ci beneen nit maanaam beneen ndaw si boo xam ne bëggante ak moom nga takk ko bu ñëwee ci kër gi sa yaay pour mu revanche ci yow ci moom la koy jaarale. waaw loolu ay erreur la léeg-léeg yu parents yi di def. Hmm. ay heure léegi yu pare gis nga sa doom bu góor boo ko amee jamono bi ni mu organisé woo léegi xam nga bu njëkkoon gis jigéen daa jafe waaw moo tax ñu daan joxoñ di la yóbbu di la yóbbante gis jigéen daa jafe bu njëkk jafe na tar waaw bu njëkk mais léegi jafe woon moom daa yomb lool moom yow lay gis sax yow dañ lay gis yow <laughs> ñi ñoo gis bu yàgg eh, voilà donc bu njëkkoon gis jigéen dafa jafe woon mm-hmm. maanaam gis jigéen foo ko mën a aborder occasion boo ko aborder comme parce que téléphone newu fi woon xale jigéen ñi daawuñ génn génn gu bari wala fu ñuy génn day am ku leen di gunge kon am accès ci moom ba man kaa wax say yëg-yëg day jaxe ñaareel ba mooy nit ñi dañoo tënk woon ci ak kilifteef lépp lépp maanaam dañoo jëloon seen dund yëpp tënku ci kilif ci ak kilifteef léegi demeetul noonu léegi am na am nañ kilifa de mais dafa am mbir yoo xam ne ñoo ko teel seen bopp lu mel ni mbirum sëy xale yu jigéen yu bari amuñ kilifa ci sëy su ma nee amuñ kilifa xale góor yu bari sax waaw maa ngi ñëw ci xale yu góor yi xale yu jigéen yu bari seenu maanaam kan la ñuy seel yoonu seen kilifa newu ci ñoo koy tànnal seen bopp mm-hmm. maa bëgg maye ma rek kasaa ñoom kilifa gi moom ndigal lay xaar rek mm-hmm. noonu lay demee mm-hmm. bu njëkk nag melu woon noonu bu njëkk ku jigéen ki moom li muy xaar mooy waaye juróom ne ko demal sëyi loolu moo taxoon ñu la daan naan demal takk sa doomu bàjjan diw sàngam wala sa doomu tànt diw sàngam wala yu mel noonu loolu nag dafa am ci parent yi ñoo xam ne ba tey ndeysaan dañuy féddali loola léegi ñu koy def ngir gën a rattaxal mbokk gi parce que loolu mooy jubluwaay bi ngir gën a rattaxal mbokk gi ak xëy na euh, jublu ci ay aspect social parce que yow sa sa waajur wu jigéen ay doomam mën nañoo gën a jekk situation que sëram ba nga xam ne mu ngay sëy ca dëkk sàngam kër baay diw mm-hmm. mu bëgg ci ay doomam yii nga xam ne ñu ngi dawale 4x4 doomam yii nga xam ne jekk nañ tabax nañ ay étage bëgg mu jël ci sëram yële nga xam ne seen situation dama wut noona mhm. kon aspect social bi tamit daf ci doon am solo mhm. moo tax parents yi léeg-léeg di def yu mel noona mhm. waaye yi léegi daa soppeeku nu mu soppeeku daa soppeeku dama wut noona loolu moo tax man ku may proposer su may proposer parent yi dama leen di wax ne ku ci yor doom bu góor bu mën a takk soxna woo ko déglu ko woo ko xamal ko ne nag toll nga ci denc loo ci dox loo ci avancé lan nga ci lan nga ci jot a def. bu la xamalee ne damaa nekk ci dara xoolal ca mu nekk lan la te nga jéem caa dox wax ca parce que soo ko détourné problème mën na am bu fekkee ne it nag nekkul ci dara proposé ko proposé ko su nangoo alhamdulilah. ne ko sa doomu baay diw sa doomu baay diw sa doomu bàjjen diw sa doomu frère diw nangam waaw proposé ko su la bu la nangulee proposition bi su la nangulul proposition bi bul forcé. ndax jëli sa mbokk indi ci biir kër gi te sa frère te sa doom ji bëgg ko loolu musiba la de. am ñoo xam ne force nag la ñuy wax. non loolu musiba loolu musiba la loolu musiba la man gis naa sëy yoo xamante ne nii sëñ bi euh, musiba la te yooyu moo koy indi léeg-léeg maanaam sëy mbëggal daf ci am solo. Mhm. sentir nit ki sentir ko daf ci am solo. Mhm. yëg sa bopp ci moom yooyu daf ci am solo. néegu sëy dafa xat. non dafa yàgg man dama ko tuddee dafa xat sax mais dafa yàgg. Mhm. xam nga tey masalan tey yow góor ak ni ko yàlla bindee. wallaahi buñ ko ne woon xale bu jigéen bii lañ bëgg nga fanaan ak moom benn guddi dong wallahi mën na koo supporter même su ko nobut mën na fanaan ak moom benn guddi comme benn guddi la mën na ko gérer même su ko nobut waaye kii da war di fanaan ak moom di xëy di yeewu di ko gis suba ak ngoon guddeeg bëccëg gi maanaam ay ati ati ati ati at nga war a nekk ak moom nit kooku boo boo sentiroo sa bopp ci moom day jafe lan moo tax xale yu góor yu bari bu ñuy labat ñooy dugg ligne waaye ligne ba dagg na bés ba ñu takkee fi mu ne keneen lay xool comme duggal ligne mais yow dootoo am ligne bu doon wax nii sax bu daan wax ba gis sa numéro nii da lay da ngay xaar. da ngay <laughs> mais balaa mu takk bu nekkoon ci réunion ba gis sa numéro danaan gars yi may dem tuuti ma ñëw daal di am fu mu dugg wuyus wuyu ko ne ko may ma damaa nekk ci réunion waaye bu la takkee ba nga nekk soxnaam. tudd madam kan <laughs> boo ko woowee fekk muy toog nii di waxtaan dinaan ataaya dinaan suu soxna si moom daa bëri nu muy woote moom kii moom ak grand gaay comme ne leen yaa ngi may vexé <laughs> gaa wax la ne góor li muy nat natee ci ginnaaw jigéen mhm. loolu day doon balaa mu koy takk mais bu la takkee moo xam ne yaa ngi toog këram di ko xaar amatul benn pression waaw mais kooku guddi guddi guddi guddi bu ñëwee dala fay fekk waaw kon kay na xaar c'est ça le problème li ma bëgg a wax mooy mhm. wàllum maanaam valeur valeur bi day wàññeeku. maanaam fi nga ko tegoon day wàcc. non day wàcc. mais est-ce que du tamit genre loo xamante da nga ko doon ut am nga ko sa warul demee noonu warul demee noonu moo tax wax mas naa wax sama benn waaye ne ko booy mayee sa doom na jafe. na may gi jafe waaw waxuma na jafe financièrement mais na protocole yi jafe. finance bi mën nañ la ko yombalal cent mille francs mën nañ la may jabar mais protocole bi na jafe waa ji bu ñëwee yónnee ko Tamba ne ko xale bii ki ma ko bàyyi la mu nga Tamba te faw nga dem gisee ak moom <laughs> bàyyi ko mu dugg ci yoonu Tamba bi waaw bu jógee Tamba ñëw ka nekk Tamba na ko yebal Koungheul. <laughs> ne ko quoi ci yoon bi la waaw ko ne ah. am na koo xam ne day benn nijaayam yoo xam ne fa nga gisee ak moom mu nga Dakar nag te moom jot ko téléphone yombut bu woowee kooku sax kooku ne ko ne ñëwal Dakar fekk ma fi mu ñëw Dakar protocole yi waaw na metti na na saf sàpp ci moom ak ay mbokkam loolu yëpp nag buñ ci luñ ci jublu bu àggee bu desu dara desu bu dul financement ne ko indi cent mille francs nga may ko jabar mhm. bu indee cent mille yemale ko ci cent mille may ko soxna si xamal ko ne nag gis nga kii dafa bokk ci pexe yi ma la doon tegal pour nga comprendre valeur li ma lay may mooy jafe la protocole yi. pour nga xam ndax li nga xaaj. xàq sax pour nga xam ndax am nga patience parce que gars yi léegi amuñ patience. amuñ patience kon loolu mooy mbir mi mooy que ne jigéen boo ko takkee dafa am lu ñu tuddee man dafa am lu may tuddee cinq non dix la sax. Mhm. dix piliers. du mariage du mariage. Mhm. les dix piliers du mariage. Mhm. noonu laa ko tuddee. muy arkaanu ak zawaaj. nga xam ne sëy bu jaar yoon bu baax ci fukki yooyu lay tabaxu poto yooyu ñoo koy yenu siis bi nga toog daa am lu ko yenu tax nga mën say toog bâtiment bi nekk nii dafa am ay poto yu ko yenu moo tax ñu mën fee nekk ànd ak dal di wax di waxtaan oto bii daal ci kaw tali bi pneu yee ko yenu yow say tànk la yenu waxalu ma jar sëy dafa am fukki pilier yu ko yenu yoo xam ne bu ma ko waxtu may ma détaillé ko donc képp ku nekk ci néegu sëy ngay góor mbaa ngay jigéen nga bàyyi ko xel pilier yii nii sëy yu bari yi tas sëy bu am problème boo tegee ñaar ñi nga déglu leen dangay gis ne am na ci pilier yi bu manqué pilier yooyee bi ci jiitu bi ci jiitu laa wax mooy mbëggeel mhm. léeg-léeg sax ma teg mbëggeel quatrième position mais léegi li ma indi ko jiital ko mhm. bi ci jiitu mooy mbëggeel mbëggeel googee li ma koy tuddee man li ma koy tuddee mooy lu ñuy tuddee sentir sa bopp ci nit ki mhm. lu am solo la. nga am ay sentiment ci moom nga am ay sentiment ci moom. jàpp ne bu dee jigéen nga jàpp ne kii mën na la yëngal. maanaam li nit ci yow kii mën na ko démarrer. sa seytaane rek. waaw sa saytaane la li sa saytaane sa saytaane la lu am solo nag baat bu am solo ngoo mhm. yàlla yàlla musal ci sax nag. ndaw si nekk saytaane mhm. que. li ko waral mooy gis nga bu la yàlla dimbalee alhamdulilah ba nga am jigéen joo xam na ca saytaane la. Mhm. yeneen xale yu jigéen ñi ci mbedd mi yëpp ay góor lañuy doon ci yow. soo amee jom parce que boo nekkee jigéen ju la mën a satisfaire jigéen joo xam ne li ngay gis ci taar li nga bëgg ci taar yaa ngi koy gis ci moom bu dee da ngaa bëgg lu koy gis ci moom bu da ngaa bëgg lu ñuul yaa ngi koy gis ci moom bu dee da bëgg lu njool yaa ngi koy gis ci moom bu dee da ngaa bëgg lu gàtt yaa ngi koy gis ci moom bu dee da ngaa bëgg lu am yaram gabar yaa ngi koy gis ci moom bu bëgg lu sew yaa ngi koy gis ci moom maanaam yow góorgóorlu nga ba xam li ngay bëgg ci jigéen dàq ko ci ndaw si tag ko maanaam lépp li ngay wër ci jigéen nga wër nga gis ko ci moom takk gis ko ci moom indi ko ci kër indi ko ci kër gi dafa am benn borom xam-xam al imaamul Ghazali xam ngeen ko moom la nasaraan si di wax mm-hmm. mm-hmm. imam Ghazali mm-hmm. benn xale bu jigéen daa ñëw ci moom am doom ne ko imaam damay laaj ndax dagan na ma bañ a nàmpal sama doom ngir samay ween bañ a daanu léegi-léeg xale jigéen dañuy laaj kee question boobu dafa am doom mu ne ndax dagan na mu bañ a nàmpale ay weenam doomam jël soow mi di ko ratt ci biberon di ko nàmpale doom ji imaam na ko dagan na ci sharia dagan na maanaam moom dafa bañ. li nga wax ni nag ay ay ay ay jigéen yu bari. waaw ay ay ay ay doom yu bari dinañ nekk ay nag de. parce que ay soowu nag lañ leen di jox. non dëgg mooy mu ratt ay weenam. mais mën non lu tax nit dañ koy wax nii rek mais naan soowu nag taxut doon nag. Hmm. parce que la alimenté nag bi ci nag bi ba nag di mbëkkee du soow ma leneen la yooyu gaa yi koy wax nii rek pour minimiser biberon yi ñu jox xale yeeg dafay yooyu mais déedéet gars yi moom loolu xam-xam. jigéen jur doom ak jamono yii ñu toll. mu bañ a perdre ay weenam. wala mu daanu. waaw mu ne du ko nàmpal da koy jox biberon. da jox biberon loolu dagan na dagan na ci lislaam loolu imaam tontu dama lay wax li imaam tontu. Mhm. loolu laa lay wax jox ma la sama version bopp. Mhm. imaam ndaw si da ko ne damaa am jëkkër ñu am doom te man xam naa sama jëkkër ci bëgg ay ween. allahu su ma nàmpalee su ma nàmpalee sama doom jii. samay ween samay ween dana sëgg. Uh-huh. te xam naa sama jëkkër ni mu mel. yaa ngi toj <laughs> mu ne ko ndax daggan na ndax dagan na mhm. ma bañ a nàmpal sama doom yi. Mhm. ngir sama ween bañ a daanu. parce que xam naa sama jëkkër ci bëgg ween. Mhm. imaam ne ko dagan na. imaam yow fa da koo bind ci téere. ndaw si daa dem imaam bind fatwa bi daal dina dagan na ci bépp doom bépp jigéen. bu am jëkkër. te nga gis ne sa jëkkër daa bokk ci li muy bëgg jigéen mooy ay ween yu taxaw. mu ne nga am doom nga bañ a nàmpal sa doom ngir say ween bañ a daanu ngay jox sa doom biberon c'est tout waaw dagan na mu ne ko nag mu ne nag loolu liñ ci jublu ngir nga sàmm sab sëy mhm. ngir nga sàmm sab sëy parce que xale bi warta juddu nekk menace si sa ménage bi si sëy parce que yeneen xale dañoo war a judd ay yu bari fu mu ne nii ay dégg yeneen xale dañu war a judd <laughs> ay xale yu bari ay xaar ma ñëw rek sëñ bi xaar eggal yaa ngi dégg kon nga bañ a nàmpal li ma ci bëgg a jublu li ma ci bëgg wax mooy. kenn ku ne góor ñi dafa am lu ñuy bëgg jigéen. gis nga ndaw soosu laaj laaj bi moom xam na jëkkëram ji li mu gën a bëgg ci moom xam na ko. waaw léegi nag bu fekkee noonu nga mel su la yàlla wërsëgalee maanaam bu dee yow njoolaay nga bëgg ci jigéen nga takk jigéen ju gàtt tamit ah. dangay nekk ak moom ba mu yàgg ndaw si bu la rombee ngay yëngal bopp naan oh mooy na mooy nag man saay man. saay lu ma dal lu ma dal man damaa xanaa dañoo takkoon say bët. <laughs> kooku a kooku a too ko respecté bari na yow sax mën a too ko respecté. Mhm. moo tax damay wax képp kuy célibataire. Mhm. benn borom xam moo ko doon wax mu ne yow muy célibataire bëgg a takk soxna. Mhm. jëlal sa temps même bu dee cent ans ngay toog di xaar cent ans man mii ku ma xam-xam na ci. Euh, soñ célibataire yi ñu gaaw takk soxna. waaye dañu laa bëgg wax ne rek booy takk jabar xalaatal. bu baax jëlal sa temps gis nga jànq daa neex a bëgg jànq wallaahi jànq mooy jigéen ju sëyagut kooku kenn bañu ko daa neex a bëgg kooku am na lu mu lay waxee ci boppam sax da da ngay nangu mais est-ce que est-ce que plaisir bi ngay partagé moom fekk yaa ngi koy doxaan est noonu lay demee boo ko takkee sëñ bi sëy daa yàgg de dafa ndànk rek <laughs> sëy daa yàgg dafa yàgg trop ak kasa kon kon première étape mbëggeel mooy mbëggeel mm-hmm. sentir sa bopp ci waay si boobu boobu pilier bu am solo la. ñaareel ba bu ngeen duggee nag ba takk ba noppi nag dugg ci biir sëy bi nag compréhension deuxième étape deuxième pilier. Mm-hmm. la compréhension. Mm-hmm. mooy kenn ku nekk na comprendre moroomam. Mm-hmm. parce que nag bokk fu ngeen yaroo de. te eh, déet te yow da ngaa ba am vingt cinq ans moom mu doog laa xam. ndaw si judd peut-être ba am vingt ans wala vingt trois ans. ngeen doo ko xamante. te it nag yàlla ba mu koy bind woo wala ne la kaay soxna sii laa lay booleel nan nga bëgg mu mel mu bind ko noonu maanaam yàlla laaju la sa xalaat bi muy sàkk ndaw si mhm. te waajuram bu góor bi muy bu jigéen bii xamul ne yow la ko yaral xamul ne la ko yaral mhm. kon peut-être waajur bu jigéen bi mën na koo yaraale wala waajur bu góor mën na koo yaraale noo xam ne yow bëggee woo jigéen noona mhm. da nga dégg waxe kon lu bare bare bari mën naa nekk ci ndaw si yoo xamante ne doo ko bëgg si jigéen te dina jafe léeg-léeg ci jigéen mu yor ay jikko yoo xam ne da koo nekkaale woon kër baayam nga indi ko sa biir kër nga bëgg a mu changé ko yow mën na indi jafe-jafe ci biir kër kon li leen mën a dimbale mooy la compréhension mhm. yow muy góor ngay comprendre xale bu jigéen bi mhm. yow miy jigéen nit ngay comprendre sa jëkkër su ngeen comprendre rek tey waxtaan communication dox seen diggante rek yu baree bare ci ay erreur ak yu sasante ngeen ko mën a mu muñalante mhm. troisième bi mooy respect ku nekk respecté moroomam sa soxna si wallahi gàntal na ay góor ñu bari dàq na ñu bari jigéen joo fi takk rek njëkke ci moom. xale bu jigéen boo fi fekk mu am dix huit ans jàpp trente ans. nga ñëw demandé ko mariage mu nangul la ngeen di doxal yéen ñaar ba egg ci baay ji baay ji nangu nga takk ñu indi ñu ne nekk fi mu ne nekk na madame diw sàngam njëkke ci moom de am na ku ñëwoon baayam bañ. boo demee moom ndaw si am na ku bëggoon indi ci biir kër gi sa baay baayam na ko mayuma la ko. wala moom sax am na ku ñëwoon ci moom. wala moom am na ku ñëwoon ci moom directement mu bañ. kon ci gàttal ñu bari ñëw nañ fa. sottiwut yow miy góor it wax dëgg ak yàlla am na ñu bari ñoo mënoon a jël. ginnaaw moom mii. ci sa biir famille. ci sa biir doomi bàjjen. ci sa biir doomi nijaay. ak ay yeneen i jigéen yoo xam ne yow xam nga ni ñii yaay bañ. nga romb leen fa takk ko kon kenn ku nekk. am na lu mu bàyyi am na lu mu bàyyi. kon respectante leen. ngir sacrifice bi pour ku nekk def. parce que man dama jàpp ne engagement yi ëpp doole ci àdduna bu nit def mooy engagement wu ci sëy. engagement ëpp ko doole de. bi ëpp doole parce que yow rajo bi maanaam télé bii nga ne. Mhm. engagement bi la fi dugal bu la neexoon suba nga bàyyi ko te am engagement bu ko gën a kawe. Mhm. te dootul feeñ fenn nit sa dund yow. Mhm. engagement boo mënti am. suba engagement contrat engagement travail engagement liggéey engagement bu mënti doon. suba man na koo bàyyi. Mhm. te ku la gis ngay dox du xam ci yow ne yow amoon nga engagement ak bii sëy nag bokk ci. Mhm. jigéen boo amee engagement dugg ci sëy mhm. boo ci génnaatee dañuy xam ne yow jaaroon nga ci sëy surtout boo fa amee ay doom boo fa amee ay njaboot sa valeur day wàññeeku sa poids day wàññeeku. na nga meloon dootoo ko mel. taar ba nekkoon caw day wàññeeku. valeur ba nekkoon caw day wàññeeku. naan ku sëy ba tas. Mm, ku sëy ba tas même Sénégal sax ñuy xewale ku sëy ba tas <laughs> bokkul ni ñuy xewale ku sëyagul. bokkut sax. hakka bokkul. léeg-léeg sax boo man damay takk soxna dafa bokk ci li lay laaj ndax ku sëy ba tas la léeg-léeg yi may woo naan Oustaz damaa bëgg nga wutal ma soxna su ma leen nee su ma leen nee ndax ku sëy ba tas wala ku sëy ñu ne ma non non lu bees tàq laa bëgg loolu kon ku sëy ba tas ak ku sëyagul bokkul. kon jigéen ji nga xamante ne nii dafa engagé wu dugg ci sëy wala góor gi ne dafa engagé wu dugg ci sëy yéen ñaar faw ngeen respectante ci engagement boobee. est-ce que respect ba ku góor ki bu waxee ku jigéen ki du tontu. loolu mën na bañ a nekk tamit oustaz problème yu bari yi may gis foofu tontu wante bi wallaahi waaw tontu wante bi euh, léegi-léegi dafay dépendre ci Allah parce que góor bu bañ ni tontu la mhm. léegi-léegi góor yi ñuy tontu yépp jigéen gis na jigéen bu su la yabee rek daa am loo manqué ci acay àqam jigéen mhm. jigéen jigéen jigéen ni ko yàlla bindee laa wax barewul jigéen boo xam ne ku góor ku man booram jigéen du yàpp góoru man boor jigéen léeg-léeg bu waxee nga tontu rek am na côté bu mu la yabe yow yaay xool ban côté la ban côté la la yabe. foo manqué la ci moom foo manqué la ci moom xàq saa nga jëm ko saafara. beneen bi ci des tamit mooy ndax respecté nga ko yow mi bañ yow mi mu tontu la parce que tontu bi da nga jàpp manque de respect mais yow ndax respecté nga ndaw si yow ndax ndaw si moom gis na ne yow respecté nga ko est-ce que teg nga ko palaasam. mooy respect réciproque. merci beaucoup est-ce que jox nga ko cëram. est-ce que yaa ngi koy muñal est-ce que est-ce que est-ce souvent ñun góor ñi maanaam duñ sax ñun góor mais ñun senegal ni ñu yàlla binde mooy bu la yàlla joxee kilifteef da dangay jàpp ne yaa yilif ñëpp. loolu la yàlla dogal. waaw ñoon ñoo xam ne bu ñu takkee jabar yaakaar nañ ni ñëpp ñoo leen. léeg-léeg nga gis xale bu góor bu saaga jabaram dagg di saaga rek mais bés bu ko saaga ndaw si saaga adduna bu tukki. te yaa ko njëkk. ku ñëw danaan man ngay saaga. <laughs> kii day saaga jëkkëram adduna bëgg a tukki léegi mel ni yow moom ku góor mel ni ku góor moom dañoo ko ne yow mën nga di saaga coow du am yow mi góor mën nga di saaga léegi-léegi sax nga mbéj mën nga di mbëkk di kajj ay ndab muy toj yëpp mën nga di ko def waaye ndaw si bu mbéjee adduna bu tukki bu saaga adduna bu tukki lu tax ban prérogative nga am yow di war a saaga moom bu saaga ban ndax saaga daa bokk ci séy bi wala bokk ci wala nangam c'est-à-dire loolu mooy problème bi mooy ñun góor ñi léeg-léeg respect bi ñu ndaw si ameel kilifte bi ñu ndaw si ameel dañ koy bëgg a jël ba mu jeex takk te duñ jox dara ndaw si duñ jox dara. loolu problème bu rëy rëy la kon ci gàttal. Mhm. bokk na ci euh, piliers yi te mu am solo lool. mooy respect mhm. quatrième bi mhm. mooy yërmande. yërmande bi nag ci ku góor ki lañ koy gën a séentoo parce que jigéen moo gën a faible. di ko yërëm. saa yoo. saa yoo bëggee doyal ci moom xool ko bëtu yërmande te xam ne yaa ngi ko fekkoon mu toog jàpp ñàmburam nga wax a wax a wax ba convaincre ko dem ci ay parent wax a wax a wax ba convaincre leen ñu jox la ko kon yërëm ko surtout nag bu fekkee mu ngi toog ci kër gi liggéey jiwul toog ji la xaar xam nga ne kii toog ci biir kër gi liggéey jiwul lu mu am yaa ko jox wallaahi loo ko joxul amu ko soo xëyoon dem bàyyi woo ko xaalis bu mu ndékkee bu ñaanut ñu may ko du ndékki kon yërëm ko mu ngi lay amal say doom di la toppatal xale yi di la defaral néeg bi bu guddi jotee nga bànneexu ci moom moo tax damay faral di wax ne am na mbindaan yoo xam ne ñoo ëpp mérite ñi sëy ci biir kër yi mhm. dangay gis jànq bu nekk ci kër di liggéey gën a tedd fop soxna si nekk ci biir kër bi di sëy ndax yow muy borom kër gi borom appartement bi da ngay yor jànq ci biir kër gi yor soxna ci biir kër gi soxna sa xëy na yàlla wërsëgalu ko ay diplôme mënta liggéey xëy na manalul boppam nekk ci biir kër gi te léegi léeg sax muy liggéey nekk nekk ci biir kër gi tamit di liggéey dem di ñëw waaye bu guddi jotee balaa soxna balaa jànq bee ñëw ci biir kër gi soxna si moo doon fobeere bu karo tilimee jànq amul soxna say fobeere kaasi buñ taqee jànq amul soxna say raxas maanaam lépp lu jànq bi di def ci biir kër gi bu fa jànq bi nekkoon soxna see koy def te bu guddi jotee nga fanaanook soxna si bànneexu ci moom te weer bu dee doo teganteeg moom dërëm doo ko jox dara bi bii nga indi ci biir kër gi di ko fay mooy raxas di togg lépp lu soxna si doon def jànq bi da koy def di la fóotal di la defaral café di la tegal ay añ boo boo wàccee te bu guddi jotee mu tëddi néeg nga tëddi néeg doo ko laal doo ko jege te bu weer deewee nga dugal sa loxo si poos am loo ko jox te sa jabar jii di def plus te fay di def plus te joxoo ko dërëm te goo ak moom dara te bu defee bu bu daarul yoon nga kaas wax yuuxu loo ko defal dara kon li ma bëgg a wax mooy yërmande bi faw muy am ci góor ñi léeg-léeg. d'accord mais aussi tamit jigéen ñi aussi tamit ñu yërëm góor ñi. Mhm. kon yu boobu ñeent yooyu tamit. yu am solo la loolu oustaz surtout loolu jigéen ñi yërëm góor ñi. ah jigéen ñi aussi mën nañu dañu war yërëm góor ñi. am na ñoo xam ne oustaz du ñu gis dara du ñu gis matériel du jox ma jox ma indi indi indi bëgg naa lii bëgg subhaanallah. <laughs> non yii léeg-léeg léeg-léeg aussi tamit dafay nekk ci xam nga jigéen. Mhm. bu gisee ne sama jëkkër am na boobu waaye dafa nay wala am na waaye du def wala am na waaye du joxe day xaar bañ laaj yooyu day indi waaw wala am na waaye day xaar bañ laaj yooyu day indi sa jabar di laaj yooyu day indi ngay muy muy laaj mm-hmm. wala muy sàcc mm-hmm. waaye bu fekkee yi nga war a def yaa ngi koy def te doo xaar ñu laaj la si yi nga war a def kooku mën nañ laa bañ a sonal ak ay laaj te mën nañ laa bañ a sàcc it nag boo xam ne boo xam fekkee ne da nga koo teg waaw kon yi ma yi ma fi wax ni yëpp daal yu am solo la yoo xamante ne nii donc mën na dëgëral sëy bu baax a baax. muy yërmande muy yërmande mën na dëgëral sëy bu baax a baax a baax. donc yeneen yi bu ñu ko toppee mën nañ fi bañ a bañ a bañ a. mais nag da nga ciy dem de parce que je pense qu'il nous reste treize minutes. kon mmh, mais mais dem ci vite fait. kon yërmande bi. Mmh. mooy quatrième bi. Mmh. donc cinquième bi. moo ngi jëm ci lu ñu tuddee. parce que boo waxee amour bëggeel wax euh, euh, deuxième bi nekk respect mhm. beneen bi nekk nekk nekk nekk yëg compréhension beneen ba nekk nekk yërmande mhm. beneen ba dafay dugg ci wàllu dëkkoo muy alu jël as as asukna muy sakina muy muy dëkkoo ndaw si dëkkal ko mhm. dëkkoo ko mooy lan mooy nga fexe ba ndaw si fi mu nekk yaa ko fay bàyyi maanaam euh, wutal ko dëkkuwaay bi gën a kawe mooy kër mënul tane appartement studio bu dee sa kër bàyyi dugal ko ci néeg alal akal waaw maanaam dëkkalal ndaw si am na ay mag sax yu naan jigéen euh, liiwam nu mu tudd euh, lu lu lu lu koy lu koy may jëmm mooy néegam dëgg la kenn bañul nag nga takk jabar dem kër baayam ne fa mhm. waaye ah man naa man naa man naa bañ a gën de mhm. ah man de du ma ko conseillé kenn. Mhm. takk soxna si dem di ko fekk kër baayam. di sëy góor buy sëy. non mën naa ko may tuddee góor buy sëy ndax loolu mën nag nekk xaste waaye du ma ko conseillé kenn de jigéen boo ko takkee da koy yor da nga koy yor maanaam da nga koy dëkkal. sa ñoo xam nañ ñu ci gën a bari surtout seen ñaareeli lañ koy defal. noo xam nga nag foofu boo fa ñëwee beneen problème mooy am mooy li zéro aw zérowul ñaareel. te li la aawa di mënal aawa yi ay ndaanaan lañ sëñ bi <laughs> yal na yàlla fay leen aawa yi non ñaareel yi tojuñ feeñ <laughs> non ñaareel yi sëñ ñaareel yi ñaareel yi ñoom dañoo fekk bu lépp pare ñaareel <laughs> non ñaa ñaareel fu leer lay dugg maa la ko wax ñaareel ñetteel ñeenteel ñi gën a ñàkk fayda nag mooy ñeenteel yi ñooñu fu leer la ñuy dugg yaa mooy jël risque mhm. aaw mooy fekk ko amul liggéey amul dara ñu muñ loo ko ko yàlla baax na mu dugg ci moom ku jàgg ci teen baag fekk la fa mu ñëw jël ay risque mosoo am jabar amoo benn expérience wallaahi zéro expérience nga yoroo kenn mosoo am jabar mosoo takk soxna célibataire nga jàppoo ci lu dëgër xamul ndax guddi gi da ngay mbëkkaate xamul ndax dangay ngay kajaate xamul da nga yor ay yaram xamul ndax da mattaate dara wóoru ko ci mhm. mu jël ay risque moom aawo mhm. nekk fa te léegi léeg mu nekk fa ak yow di jàpp di bàyyi di yéeg di wàcc di kër këree ka tës tësee ka jaayi ndugg ka jaayi géej yooyu ba dara taxaw boo xoolee wee ñaareel ah gis nga ñaareel du jël risque xoolal wallahi laa wax na laa wax mais ku fi yor jabar laa wax ku fi yor jabar yor benn soxna ngeen di fanaan ci ay baraak ci ay mbaar muy metti ngeen di dëpp cin foo dugg wut ñaareel ñu dàq la mais parce que yoraloo sa aawo sax bay yor ñaareel lañ lay wax yow aaw bi nga yor mën a loo ko dara di yowtu beneen soxna lool lañ lay wax moom mi ngay wut moom ñaareel bi ngay labat moo lay njëkk a wax loolu ne la yow xam nga sa bopp yow <laughs> yow sa aaw bi yoraloo yoroo ko ni déedéet ku ñeewul sa aaw dugg ci yow leer naa la naa dégg kon ñaareel yi sama xarit lañ <laughs> jënd glace sa samay xarit lañ. jënd glace samay xarit lañ. yaa ngi dégg moins ñoom benn problème mais dama la bëgg xamal ne réalité la mooy ñoom duñ jël risque. no ñaareel du jël risque saa yi déet ñaareel day fekk lu pare mu dugg ci. mbaa mu fekk luy dem wóor ko ne lii day dem. mu teg ci loxoom ànd ak moom. ñetteeli moom bul wax ñeenteeli moom ñooñ moom mooy loolu. kon jàmbaar fàkk tëdd mooy aaw. yal na yàlla fay leen. amiin yaa axi. waaw kon ku ci yor sa aawo. Mhm. wax dëgg yàlla da ko bàyyi xel. d' accord kañ. d' accord alors euh, ABC mu ngi ñuy daal di seetaan kooku sa fans la. ñu koy jaar kooku moom kooku moom sa fans la mu ma ko wax depuis sànq. mais euh, pour pour pour pour juste terminer euh, dafa am ñoo xam ne baat une deux trois fase naa la une la isla islam ci fase nee nañ bu fekkee ne kaf nga sax ne fase naa la dëgg la waaw. laaj nga laaj bu am solo dafa bokk ci mbir yi nga xam ne lislaam du ko fooy ñetti mbir a ngi nii yoo xam ne lislaam maanaam foo ci dëgg la caaxaan ci dëgg la maanaam maanaam moom daal lislaam xamu ci ak kaf muy weddi yàlla fi mu ne boo toogoon naan di foo nii rek comme li ñu bari lañuy ñuy def bu weeru koor jotee naan yii man damay nekk damay nekk euh, yéefar ba koor gi jàll wala damay nekk ci beneen diine ba koor gi jàll même boo koy kafee day day nekk dëgg. comme par exemple góor ñi ngay wax jullil ñu naan dañu damaa gis samay règle nag. non yooyu mën na nekk ay waxi caaxaan rek ak waxi bañ a julli mais bokk na li li may wax. Hmm. donc maanaam génn ci diine maanaam saboote diine bokkul ci li lislaam di café même booy kaf di saboote sax dangay ngay yàlla loolu samay wax suñu borom tabaaraka wa taala moo ne abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ci ay nit la ko yàlla waxoon. dafa amoon nit ñoo xam ne yonante bi daa ànd ak na ñoom dem xare bañ demee ca xare ba ñu wéet nële beru di saboote yonante bi di saboote alquran di saboote yàlla te foo lañ foo lañ ko dañ doon kaf dañ doon balagante yàlla wàcce jibril ñëw indi aaya jox alquran yonante bi alayhi salaatu salaam na ko waxal ñële ñu ngi saboote diina ji yonante bi jàng aaya bi ca kaw gaa yi xam ne ñoom la yonante bi di waxal ñu daw topp yonante bi naakaan dañ doon fo dañ doon kaf rek dañ doon balagante yonante bi ne leen abillahi ndax yàlla wa ayaati ak ay ayaam war a eh, billahi wa ayaati wa rasuli kun ak yonantaam kuntum tastahzi'un ñoom ngeen doon ñaawal di leen saboté laa ta'tadiru bu leen jéggalu xad kafartum ba'da imaanikum weddi ngeen ginnaaw bi ngeen gëy bu nag kon diine di ci mbalak wala di ci saboté di kaf amul ci booy def di kaf ak kafoog da ngay weddi yàlla fase aussi noonu la mel fase aussi l'islam santaane wu ci kaf amul kaf fi mu ne boo doon kaf sa jabar nii ngay kaf ak moom naan kan léegi ma fase la léegi yow sax fase naa la sax dañ lay compter benn fase. subhanallah ci kaf dong bi kaf benn rek am na. ngay si jëm comme mu def la dara rek ko ah bon man demal fase naa la. fase benn fase benn kaf. te kaf dong la kaf rek benn fase ngoog day tàbbi. kaf saa yu ko góor naa ngay fase saa yu ko góor naa ngay jëme si jabaram day am am na sax lu ñu talaaxul tuddee talaaqul muallaq talaaqul muallaq talaaqul muallaq mooy fase moo xam ne balaa ngay takk soxna si nga ko wékk ne soxna si yow bés bu ma la takkee booy togg ceebu jën sama biir kër ma lay fase mooy sa fase yow. bis mu la takkee nga togg ceebu jën ci biir kër gi bu keroogee mooy sa fase saa yoo ko takkee bu toggee ceebu jën sëy bi tas na. allahu akbar. talaaqul loolu la de mais bu baax fase balu fetal la boo ko nee bëm bu génnee génn c'est fini léegi nag buñ la boo nee soxna si fase naa la même booy kaf day tàbbi am nga am ngeen benn fase yéen ñaar am na benn waaye ma woon Maroc ñëw di ma fa dafa fase jabar ji ñetti fase di ñëw daal ñëw ci man ngir indi ay prétexte daal parce que dafa bëgg a jëlaat ndaw si te ñetti façon yi am na mais moom daal bëgg na daal lan laa koy wax ci l'islam du ko permettre mu jëlaat ndaw si ma ne ko déedéet seen diggante jeex na mu ne ma oustaz dernière façon bi damaa meroon ma ne ko da ngaa gis kuy kontaan di fase am na wala non non kontaan nii nga ñëw ñu taajal la añ nga añ ba suur ñu tegal la njar mu def ci suukar ba mu saf sapp nga naan tegal la ataaya jël say tànk dugal ci ndox mu tàng di da dugal karate ka nooj nooji nga kontaan ba sa xol sedd naan soxna si fase naa la sax sa kër naan naa la <laughs> gis loolu déedéet am ah, déedéet gaa yi dañuy mer di fase kon mer fase terewul fase ma day dal léeg-léeg nga dégg sëriñ daara buy wax loolu mais njuumte la waa ji ñëw naan damaa meloon rek ñu ne ko ah comme da ngaa meroon fase ba wérut déedéet fase moom même boobu mànday naa sàngara dem naan sàngara ñëw boo fase soxna si day tàbbi benn fase parce que foofu borom xam-xam ne donte am na ñu wute am na ñu wute ci wax jooju mm. mais borom xam ne dañ ne yow yaa nekk sa bopp maanaam yaa naanaan sa bopp sàngara kenn forcé wu la beneen bi ci des aussi mooy bu fekkee ne képp ku mer boo nee soxna si fase naa la bu mer ma giifee nga ne damaa meroon soxna si ñëwaatal mu ñëwaat bu boobaa jigéen ñi dañuy nekk fowukaay ci loxo góor ñi l'islam loolu la xam bu fekkee it kuy kafe am foo am fase fase nii rek ne ko ma doon kaf mën ngaa jékki-jékki ne soxna si fase naa la mu roñu te jigéen ñoo xam ne boo leen nee fase naa la duñ fa yendu dañuy roñ seen i bagage ñibbi seen kër baay nga dem ci kër baayam naan kaan ah, man de dama doon kaf rek waaye soxna si kii daa saf xorom rek ma doon kaf rek ñu ne ah comme da ko doon kaf moom l'islam du reconnaître fase boo xam ne da ko doon kaf bu yàggee luy xew bu yàggee jigéen ñi ñooy nekk fawukaay ci góor ñi roñ roñu dem roñ roñu ñëw def ko def sëy ak fase muy fowukaay. te fase ñetti yoon c'est fini. boo fasee ñetti yoon jeex na. boo fasee benn yoon ay kaf. oustaz même booy kaf boo fasee ñetti yoon sëy ba tas na. boo bu fekkee foo benn yoon fase naa la benn. benn fase. nga fawaat fase naa mën na nekk boo fasewaatee. kaf lu dul kaf ak mer ak ñàkk mer ak ñaar des na benn bal. Mhm. boo ko dóoree ca fini maanaam jigéen ñaari yoon nga ko mën a jëlaat. première jël bi boo ko bàyyee mën na mën nga koo jëlaat boo ko bàyyee mën nga koo jëlaat boo ko bàyyee mënatoo ko jëlaat muy ñaari yoon rek nga ko mën a ñaari yoon nga ko mën a jëlaat ginnaaw bi nga ko jëlee ci jël gu njëkk ba pare soo ko fasee foofu nag c'est fini il faut mu amee beneen jëkkër ci loo yëgul yow te foog mu am benn jëkkër boo yëgul jëkkër boo yëgul kooku fase ko te fase ko rek du doy de maanaam kooku bu ko tey boo fase woon jigéen ñetti yoon mhm. benn waaye bu nekk bitim réew takk ko mhm. balaa muy balaa waajee ñëw maanaam consommé wuñ seen mariage waajot fasagot loolu taxul nga mën koo jël de consommation bi foo mu am waaw il faut waa ji consommer mariage bi il faut mu am sëy boo xam ne da koy consommer pour nga mën koo jël benn waaye dafa ñëw ci yonante bi alayhi salaatu salaam fekk daa fase woon soxnaam ñetti yoon soxna si sëy ci diggante bi waaye jotul a consommer sëy ba soxna si ñëw ci yonante bi alayhi salaam ne ko ndax bu ba kii fasee mën naa sëy waat a kële yonante bi ne ko déedéet lu dul da ngay naa consommé. Mhm. seen mariage bu noppi wax kañ ngo ma kontaan bu baax a baax ci dalalaat la encore une fois Ibrahima à chaque fois damay gis ne temps bi su ma la amee temps bi day gaaw <laughs> di kontaan bu baax a baax en ci dalal la lan ngay lan ngay tàggatoo pour tey. voilà euh, bu fekkee ne foofu lañ amoon ci waxtu. Mhm. donte bëggoon nañoo dem ci yeneen détail mais xëy na beneen yoon mën na gën a yaatu. incha allah donc li may tàggatoowee mooy bëgg naa donc ñu jël mbirum néegu sëy bii di ko demandé. Mm-hmm. nga yegg ko kilifa yi doon man sama waa sama temps bariwul. Mm-hmm. mais bëgg naa mu nekk programme boo xam ne. Mm-hmm. à l'école du mariage. lay tudd. même bu dee du am. par ayu bés. moo xam day am weer bi benn yoon. wala deux semaine benn yoon. nga xam ne dañuy tàmbale. silsila lay doon dañuy tàmbale ci rabat. jéggi labat ñëw ci aada yi nga xam ne moo am ci néegu sëy aada yi aada ay njàng la yu ama am solo la lekkum laax googu gaa yi di def firi gi ñuy firi ndaw si di ko leetaat sang bi ñu koy sang bu ñu koy jébbal boroom këram ak jébbale gi jébbale gi maanaam di sëy ak jigéen joo xam ne mos ta xam góor yaa ngi dégg ak maanaam bu ñu la jébbalee ndaw si première guddi bi nga war a nekk ak moom yàlla fa diina jàngal yooyu yu ci am solo moo ci nekk yu mën a sécuriser seen sëy yéen ñaar beneen ba ci des mooy vie conjugale bi wàllum sëy bi ci boppam vie conjugale bi ni ngeen di nekkee bu ngeen jógee ci loolu bu ngeen amee njaboot nu ngeen di yara seen njaboot njaboot gi ni ngeen di nekk ak ñoom ak su ngeen bëggee am njaboot gu baax nan ngeen di sëyee dafa am façon sëyin booy sëy ak soxna ngir am njaboot gu baax mm-hmm. yaa ngi dégg seenu njaboot nu ngeen leen di yare mm-hmm. yaa ngi dégg loolu mën naa dem ba dem dugg ci miraas mm-hmm. kon yooyu programme la boo xam ne donc buñ ko buñ ko mënoon a tër dañuy am njàngale mu nose mu leer moo xam ne képp kuy waaj a dugg ci sëy boo ko dégloo mën na laa defar mën ngaa waajal sa bopp képp ku nekk ci biir sayit boo ko dégloo mën ngaa defaraat sa toogaay mhm. parce que man loolu daf maa intéressé daal yal na yàlla def jàmm ci réew mi ak bitim réew yal na yàlla subhanahu wa taala la moo yóbbal donc bale passé dafa nga yóbbal de tey la moo yóbbal ban secret nga ñuy jox waaw ah, tey bu ma doon joxe si yóbbal damay hmm. joxe yóbbal ci euh, képp koo xamante ne nii da nga amoon benn euh, lu ñu tuddee sa doom buy feeñal ay bañ hmm. <laughs> <laughs> de sa doom day feeñal. day na voilà. Ah. <laughs> donc xale buy feeñal ay bëñ. Mhm. Euh, léegi-léegi day feebar. Mhm. biir bi di daw biir bi day daw mais tàng. yaram bi di tàng. Mhm. muy feebar. nga dem hôpital wala pharmacie muy naani garab. mais am na lu ci efficace lu ci baax. muy lem. lem bii. bu efficace la. da jël lem original nga togg ko. su ma nee togg ko mooy jëlee benn cafetière rek teg ci gaz bi sotti ci lem ji su tàngee jër teggil yëngalal teggi lem boobee sag guddi bu xale bi di tëdd na yaay ji jël baaraamam bu mag bii dugal ko ci lem bi takkal ko ba mu takk ŋaaŋal xale bi diw ko ca ciiñ ya ci kaw ci suuf fépp fi bëñ ñi di génn mu diw ko fa bàyyi xale bi nelaw ak loola bu ko bu xëyee na ko defaat bu ko sangee ci digg bëccëg na ko defaat loolu lu mën a wàññee dangaru bëñ ñi la ci wàllu métti gi muy métti ak tàngal gi muy tàngal yaram bi. macha allah beneen mooy tunu na. tunu na ak huile xabatu sawda lu efficace la ci yaramu xale buy tàng. mbaa xale buy saqat. naa ne garab yu bari mën a fekk. mbaa buy saqat. yaa ngi dégg diw ko fii ci nampatal bi ci kaw. jaxasal huile d'olive bi ak tunu ko la bi raxa kii ko diw ko ci yaramu xale bi. bàyyi ko guddi muy tëdd yaram bi day sedd guy comme glace incha allah. macha allah. yàlla na yàlla def jàmm jazakumullah xayran merci beaucoup Ibrahim doyaluñu nag waaye nag yàlla li la dogal en tout cas toute façon dinañ ci daal di jaaraat di jaajëfal képp ko xamante ne yaa ngi doon seetaan boobu ba tey di nuyu Pama si sama élève la moom moo def t-shirt bi ci man day jaay ay t-shirt n'importe quelle couleur boo bëggee à 100000 francs mu defal la ko maa koy nuyu bu baax a baax d'ici là prenez soin de vous à demain incha allah